alimu kullu fannin la abid la murid saadix la itam ndax lépp lu sëñ Tuubaa mos a sant Ceerno bi fi bàyyam nekkee moo ciy man bi fi sëñ Cheikh Xaddi nekkee it moo ciy man te yàqulu ko dara ci sariyaam waaw ab taalibi la bu wér li xam-xam bi bari bari taalibi gi ko li taalibi gi bari bari fonk gi mbokk ko li fonk gi mbokk bari bari ah, fonk doomu aadama ko ci moom waaw mos a jullee futul ci jàkk naafilaam yi dara du ko dog te lu mu am jox ko sëriñ bi bi bàyyam nekkee lu mu am jox ko bi sëñ Cheikh Khady lu mu am jox ko nun ñii itam nga xam ne noo ko féete ak mag lu ne la ñu yónnee lu xew lu ne lu ne dañu ko ci yónnee kon kooku mooy Abdourahmane waaw bis bi fàggandiku woon na ko lool waaw fàggandiku na ko ah, ci diggam ak lislaam fàggandiku na ci diggam ak taalibeem kon yaar yëpp yàlla na ko yàlla fay waaw amul morom morom moom amu lu mu am rek ci sariya la ko def jàkka koy def wala daaray jàngukaay li mu mokkalal ci alxuraan buñ ko seetoon dana ëpp junni nit li mu jàngal ci xam-xam ba ñu dañu bu réer buñ ko seetoon dana ëpp junni nit te ci bokk yi la ko tàmbalee kenn ku fi nekk jàngal na sa doom am na fi sax ñoo xam ne dafa jàngal seen baay jàngal seen i doom waaw te bi mu amee fukki at ak juróom-ñett bi mu amee fukki at ak juróom-ñett ci la tàmbali lii te mu sujee dëpp ba bis bi mu fi jógee waaw jékkiwul bay doon mag soog koo def fa tànkam rek la ko teg ci fukki atam juróom ba bii mu amee juróom-ñaar fukki at yu manqué benn waaw noo ngi ñaan nag yàlla bu yaakaaram tas yàlla na ko yàlla boole ci jaam ñi mu goreel te waxtu bu ne bàyyi na fi bind boo xam ne ku ci nekk ku ne ah da sa boroom dana la gërëm sëriñ bi dana la gërëm band yi mu def yëpp du bandu boppam bu muy wax ci boppam dara ku ku jàng nangam da nga am nangam ku jàng nangam yàlla dana la yërëm ku liggéeyal kuy liggéeyal sëñ bi nangam nga war a def kuy jox sëñ bi nangam nga war a def sëriñ bi nangam lañ ko war a jàppee mooy mooy mooy mbiram te mosu cee jox benn yoon